Euh, monsieur le préfet am na lu nag danaa ko jàmbat danaa ci taxaw mooy yoon wi jóge xombal jaar nduuf dem njëyeen sarax wuti njagañaaw monsieur le préfet yoon boobu yoon la bu xam ne président wadd daf ko programmé woon programmé ne day jóge Tiwaawoon jaar Touba jaar xombal jaar njëyeen sarax bi ñu demee ba élection yi jóg mu ne daf koy def ñaari trance day jóge Tiwaawoon ba xombal bu paree bu élection yi passé mu jëlewaat ko xombal yóbbu ko njëgañaaw yàlla dogal élection yooyu moom mu jóge fi gis nga boo xoolee boo jógee Touba Toul ci péage bi jëm si xombal dangay ngay gis signalisation yi ñu fi def nja euh, fële euh, sànjara lañu ci bind kon nga xam ne projet bi projet la woon boo xam ne dafa jóge Tiwaawoon wuti sànjara mais président Macky Sall bi mu ma recevoir bi mu ñëwee bi ma waxee ak moom dama ko waxoon na ko dinaa ànd ak yow jàppale la sans condition ñaari condition yi rek laa lay jox mooy euh, sama dëkk yi amul courant nga électrifiel ma ko yoon boobu itam nga defaral ma ko daf ko bindoon téye ko ci loxo càmmeñam bi may dem mu ne ma lii moom danaa ko def mais malheureusement ba fii ma toog di wax ak yow maa ngi continuer di jàmbat yoon bi yoon bi nag dafa def njéyeen sarax mu enclavé wu parce que jaar ci ak tànk sax yombul waxuma saret ak oto préfet yoon boobu amul benn yoon bu ko ëpp priorité ci biir réew mi yoonu développement la moo jokkale ñaari autoroute yi nga xam ne ñoo amagun Sénégal muy Ila Touba bi ak autoroute euh, Mbour euh, kawlax Euh, ñaari route nationale yi muy route nationale numéro 2 ak route nationale numéro 3 yoon boobu moo leen jokkale ñaari marché yi gën a mag ci département bu cees wala ci région bu Thiès muy sànjara ak Touba yoon boobu moo leen jokkale daf ma jaaxal nag lu tax gouvernement bi xaw a sàggane yoon boobu ba fii mu nekk nii yoon boobu defaraguñu ko te pourtant jàpp naa ne yoon bu ñuy defar ci Sénégal yoon boobu moo ci gënoon a jiitu kon nag yow miy représentant de l'État dana jàmbat yoon boobu diggante fii ak màggal gi nag jege na mais dama lay ñaan euh, service yi nga xam ne ñoom ñoo amee seen compétence ci loolu la féete ñu dimbali nu fàkkal nu ko ba ñu mën caa jaar dinaa la xamal ne màggalu daaw oto dafa daanu xam nga oto buy dem ci màggal daanu nag lu doy waar la te dara waralu ko lu dul bon gi nga xam ne moom la ko yoon wi bon kon daal loolu bëggoon naa ci tiire sa attention bu baax